dégg le ministre porte-parole du gouvernement def une sortie boo nga xam rafetlu ma ko d'ailleurs moom moo provoqué lire de les députés de de de Benno Bokk Yaakaar te ma jàpp ni aussi bokk na ci li nga xam ne boo ko jàngee bi nga xam ne réew kenn du ko doxale noonu quand Macky Sall a pris le pouvoir xam nga boo fàttali ko élection yi dafa war a ñëw deux ou trois après les élections législatives mais il a le président Wade mu désigné su ma juumul Omar Sarr moo demoon rencontré ñu négocier waxtaan voté loi ñu war a voté voté texte yi ñu war a voté reporté d'un commun accord les élections législatives organisé ko au mois de juin mois de mai je ne sais plus exactement en tout cas quelques mois après date bi ñu ko war a def donc boo ñëwee jël un pouvoir amuloo majorité à l'Assemblée nationale amuloo assise populaire bu la may nga nga nga nga gouverner da ngay war a xam ni ngay doxalee j'ai bien apprécié bi ma déggee ñun le président de la république recevoir na le président de l' assemblée nationale mais réew noonu lay doxee tu reçois président de l' assemblée waxtaan ak waxtaan ak parce que réew mi encore une fois ñun ñoo ko bokk nous ne sommes pas des mën nañ nekk adversaire d'un soir le soir d'une élection mais au-delà réew mi ñoo ko bokk. mais est-ce que da ngay fustiger la probabilité euh, de nu mu tudd d'une motion de censure euh, contre le, le, le gouvernement da koy fustiger wala da nga jàpp ne. euh, c'est un processus normal dans le jeu oui, démocratique. démocratie la preuve Amadou Ba dafa nekk motion de censure. waaw ñoom ñoo ko initié sax n'est-ce pas Abdou bi mu nekkee premier ministre. def nañ ko motion de censure. c'est la démocratie sauf que sauf que bii nii ça peut être ça ça peut de conséquence parce que ba ko waa PDS di def. Euh, majorité réew ci assemblée ba. ñoom. Euh, Pastef ñii bañ koy initier ak seeni alliés euh, il n'avait pas une large une large majorité aujourd'hui Benno Bokk Yaakaar à la majorité euh, Pastef en tout cas le système en place n'est pas sûr du soutien du PUR ou de Taxawu ou de Taxawu Dakar Euh, même du PDS même PDS ñoom fu leen neex la ñuy fëlee euh, dara wóorul ndax PDS dina dina leen soutenir parce que Karim Wade jàpp na ne l' élection un moment def na ci lim ci lim lim lim ciy def euh, pare na ci d' ailleurs il n'a rien demandé mm-hmm. PDS bokkul ci formation gouvernement donc il se peut que bu ñu bu Ousmane Sonko demee assemblée au mois de juin gouvernement ba daanu c'est possible. ñu war a ñu euh, perte de temps encore. mooy li may wax nii moo tax gis nga man li may wax nii encore une fois je le répète je suis un opposant un opposant constructif bëgg lu jëmmale réew mi kanam te li ma la wax ni les députés de la l'APR de de benn Bokk Yaakaar le ministre porte-parole du gouvernement moo leen provoqué moo leen tooñ parce que gaynde gu tëdd nelaw nelaw bàyyi ko fu mu nelaw. waaw mais tamit. Euh, mais attends attends maintenant ndox tuuru na rootiwaatu fa sës. par an baax mais rootiwaat moo fa sës rootiwaat bi mooy lan moom mi wax ba provoqué ñooñu ba coow li am xam nga mënatu ko régler il appartient aujourd'hui à mon avis au président de la République parce que Ousmane Sonko en tant que premier moo war a dem defi déclaration politique générale donc moom amul lu muy wax ak député yi avant loolu mais le président de la République gardien de la Constitution clé de voûte de nos institutions tey moo war a monter au créneau woo les députés des groupes présidents de groupe Il n'a qu'à convoquer le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar il n'a qu'à convoquer les autres présidents du groupe parlementaire waxtaan ak ñoom ñu xam ni li ñu war a def c'est dans l'intérêt du Sénégal. mais bu ko deful lan la leen di tegal. c'est une négociation politique. Oui. Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui à l'opportunité euh, fay naar bi xoromam xam nga am Mbow. je suis d'accord xam nga Abdou Mbow. loolu je suis d'accord Maïmouna mais dama ne dama ne. lan la leen xam nga chance bi ñu am xam nga chance bi le pouvoir am mooy opposition bi mu am. tu as cité l'exemple d'Abdou Mbow et tant d'autres mais c'est des hommes d'État c'est des hommes responsables c'est des hommes qui sont à l'écoute du président Macky Sall c'est des hommes yoo nga xam ni c'est l'ombre du président Macky Sall c'est des hommes yoo nga xam ni tànk yi jéego yi président Macky Sall teg ca la ñuy teg kon bu ñu gisee le président Macky Sall mën a recevoir les ministres les ministre des finances et d'autres ministres du gouvernement pour jàppale leen teg leen ci yoon daan l'intérêt du Sénégal parce que ñooñu dañ ko ko sant dañu am comportement bu tax ba président Macky Sall mun a def loolu fii nag ci biir réew mi seen ministre ñëw na wax njombekam indi na fi coow mais président de la république amoon mon avis man de su ma nekkoon place am loolu laay def. mais bu damay woo les différents présidents de groupe mais est-ce que fàtte woon ne tamit euh, aujourd'hui cette euh, cette lune de miel entre Macky Sall et les nouveaux tenants du régime n'est pas du goût de beaucoup de gens à l'APR gars yi dañu mer de. nekkuñu ci APR ñu ngi groupe parlementaire waaw d' accord mais groupe parlementaire bi prolongement oh, assemblée nationale je suis d' euh, mais dama ni euh, parti bi prolongement bi groupe parlementaire la à l' assemblée nationale. dama ni dama man li ma gëm tey mooy le président de la république doit parler war na wax ak les présidents de groupe parlementaire na def devoiram parce que ki ngay woo pour wax ak moom ni ko dans l' interview Sénégal kat xam naa ni lii ak li demee na nii war naa voter une loi de finances rectificative déclaration publique générale sax beneen affaire la. war naa voter une loi on va vers le vote d'un budget parce que le budget on vote au mois de décembre mm-hmm. on va vers le vote du budget avant ñu voter budget bi y a les travaux en commission et tout ça te loolu bu ñu ci déggoowul le minimum pour dem ci dañu bloquer réew mi su ñu ko bloqué kan mooy perte c'est les Sénégalais donc tey jàpp naa ni c'est le président de la République qui doit monter au créneau pour trouver une solution face à ce problème bu ñu ko deful ci problème bi